doomu Thiès bii di Pape Matar Sarr moom ak clubam Tottenham dañoo dalal club bii di Xarabaak daal di koy dóor 3 buts à 0 Pape Matar Sarr nag moo dugal ñaareelu wii bi. coach su Manchester City bii di Pep Guardiola wax na xalaatam ci li nga xam ne mooy Carabao Cup bi nee na beneen match bu amaatee ñaareelu équipe bi mooy jouer ndax li ko métti mooy minute yu xam ni joueurs yi ñu ngi koy jouer. li muy naqarlu mooy simili yu néew yi nga xam ni wala waxtu yu néew yi nga xam ni joueurs yi dinañ koy noppalu ndax wax na ni juróom fukki waxtu kese la amoon pour mën a noppalu pour mën a jouer li nga xam ni moom mooy Carabao këp bi te loolee tax du indi équipe bi nga xam ne mooy équipe bu mag bi saa su nekk deuxième équipe lay indi ci compétition bii nii ngir daal di koy jongante ndax li ñuy jongante daa bari mu ngi ci championnat bi mu ngi ci Ligue des bi. kii di Kylian Mbappé joueur ci Real Madrid xam ngeen dafa blessé te fi mu ne nii dina rate match bi nga xam ni moom lañu ñu war a jonganteeg Atlético de Madrid muy derbi de Madrid ta nga xam ni ñaari équipe yu wujje la te bokk benn bërëb buñ féetee nga xam ni bokk na ci match yi gën a mag ca Espagne match boobee dina ko wuutee mais gars yi nag neexul ba neexul xaw ma pour moo neex xaw ma joué Real moo neex xoola gaa yi seen BMW yi ñu leen jox en tout cas képp ku may seetaan te bëgg koo doon yàlla na la ko yàlla def mais gars bala ñoo sori bu leen di wéy di abonner di commenter di partager vidéo yi ndax amna ci solo lolo yok communauté bi doole té ci yeen lañ ko mëna yaakar kon gars yi max de partage ki di Andy Carroll nak. xam leen ni dem bim dem Bordeaux mom danaka mo ci perte waye nak nekul jour bo xamni day football ndax xaalis mom nak, salaire am mu ngi tollu ci 3500 euros par mois club bi di Bordeaux mu nga feulé ci 4e division bu France ki di Omar Berada di président Manchester United xam leen na ni objectif bu ren mooy jël championnat maanaam Premier League bu Angleterre bi nga xam ni Liverpool mu ngi fa Man City mu ngi fa Arsenal mu ngi fa te gën a jekk taxawaay lool club bi di man seer waaye président bi li mu bëgg wax na ko te leer na mooy objectif bi lenn la jël Premier League bu 2024 2025. xibaar bi nag ñu ngi ko xamee ci Fabrizio Romano. coach xarabaag bi di Gurbanov wax na di ko métti ginnaaw ba nga xamee ni match beeg Tottenham jeex na. nee na tey ba ñuy dem stade circulation bu métti lañ dund te amuñ benn policier bu leen escorté ngir ñu dem ci yoonu stade bi nga xam ni ñu ngi woon ci jëm. loolee nag nekk na lu ko métti ci seen match tay bi. kii di Iñaki Williams di mag ci kii di Nico Williams xamle na ne rakkam amul dara lu muy réccu ci des bi mu des fële ci Athletic Club yokk na ci ni Nico bëgg na lool ci Bilbao bi mu nekk te yaakaar naa ni dinañu wéy di jouer maak moom ay at yu yàgg yàgg. lii nag ñu ngi ko jàngee ci aas Nico Williams nag ñu fàttali ni barsa da ko fee bëggoon bañ jàppoon ni lool dina dem waaye mujj gi nag mu mujjee des fale ca Bilbao ci wetu magam ji nga xam ni moom mooy Iñaki. ca geneen wet ga club bi di Atlético de Madrid dafa dem fekk ji ki nga xam ne moom mooy Celta Vigo daal di koy patal ginnaaw ba nga xamee ni match bu xat lañ jogante kii di Julián Alvarez ci quatre-vingt-neuvième kii di Grisou da koo yekkal Julian daal di koy wàccee ci kër gi ba tax Atlético daal di pattal ki nga xam ne mooy Celta Vigo noone nag ci la ñuy waajalee li nga xam ne mooy derby madrilène bi nga xam ne ñu ngi ko war a jongante ci dimanche bi ñu jëm incha allah. ba tax na Atlético day wéy di dàq ji kii di Real Madrid ak barsa fi ne nii nag match bi nga xam ne moo ciy dalal Real bu ko dóoree day nangu deuxième place bi am 18 points. Lewandowski nag dafa jàppee Lamine Yamal comme meilleur ailier boo xam ne moo nekk ci àdduna bi. nee na nag jour bu espécial la waaye nag mbir mi nag nekkul ci ni ngay tàmbalee waaye ci ni ngay jeexalee sa carrière la te dafa am solo mu yokk ci ni lamin Yamal di setan la am waaye daa war xalaat fukk jàpp fukk ak juróomi at yi ñu jëm waaye waru xalaat ñaari at yi kese te Lewandowski gëm na ni Lamine Yamal mën na am carrière bu yàgg lool man dama leen laaj ak li ngeen gis Yamal di ko wane est-ce que jàpp ngeen ni mën na dem ba atteindre benn niveau bu kawe bay jege ñi nga xam ne ñoom ñooy Cristiano ci carrière ak ñu ni mel. Pape Matar ak ay naataangoom ginnaaw ba nga xamee ne gañ nañ seen match bu njëkk ci Europa League bi fi mu ne nii seen classement nii la tëddee Ajax moo nekk ci kaw. Steaua Bucarest moo topp ci deuxième place bi Lazio ñëw ci troisième place Tottenham Galatasaray Rangers Slavia Prague Lyon équipe yi ñoo ñu ngi ci premiere ba huitième place. nga xam ni ñooy qualifié directement huitième de finale waaye du ñoom kese ñoom ñoo gañ seeni match ñi ci suuf nag nga fay gis kii di Besiktas Karabakh Dynamo Kiev ba ci Olympiakos ak Malmö di nga leen fa fekk waaye li première journée bi la nag buñ duggee ci deuxième journée bi ba jàpp ci huitième journée classement bi dina yëngatu te dana changé danañ xam ku ci nekk fan ngay féete kon gars man fii laa yem ba suba jàmm incha allah peace I'm out.